thank you mais lépp loo gisee si commencement ba la woon. jëf suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel au fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV wala Actubuzz dal leen jàmm bu baax a baax a baax ñu ngi jàkkaarloog ak benn ndaw boo xam ne mën naa ne as naqar moo tax ñu dalal ko fi nga xam ne daanaka moo di ci Actubuzz fi nga xam ne daanaka moo di ci Feeling Dakar avant ñu sori waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokki internet yi nga xam ne mën naa ne ñu ngi ñuy bàyyi xel grand ñu leen nuyu bu baax a baax maa leen delloo siyaar waa Feeling Dakar. nga mm, fàttali ñu tur bu baax man maa ngi tudd Moussa Gueye mais ñu ma gën gën a xam ci caki quoi. ci caki caki. caki waaw. voilà euh, ñu ñu bëgg a benn chose mooy as tiktoker bi nga xam ne daanaka mu ñu koy woowee ci tour bi euh, Zeus euh, ginnaaw bi nga xam ne mën nañ jàpp ne dafa def li nga xam ne moo di riir boo ci mënee ñëwaatal rek te gëm naa ne ñaar dund ngeen loo xam ne tey jii nii mën nga ñu ko mën a wax bu baax a baax. waaw balaa dara maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. di leen nuyu di nuyu mbokk internautes yi waa Actubuzz ak waa Feeling dakaar waa Serigne Ndiaye ñu ngi ko gën a xamee ci Zeus Serigne kan la tudd quoi mais turandoo moo mooy Serigne Ndiaye quoi. waa Zeus sama xarit la quoi daanaka defandoo nañ lépp man ak moom. dund dund nañ lu bari man ak moom dund nañ naqar dund nañ bànneex. parce que am na benn jëmmi jamono moom bi mu jugee bi mu jugee Kaolack. Dakar fii la nekkoon di jàng. fii mhm. kër Mor mhm. mais yaayam mu ngi dëkk ba quoi papa mu ngi Italie mhm. léegi bi mu nekkee fii nii di jàng di jàng yàlla yàlla yàlla mayoon na ko nag xel mu neex la yoroon da doon jàng jàng na ba troisième secondaire ba année bi mu war a defee BFEM xam nga mais comme yaayam mu nekkoon dëkk ba yaayam nekk ci ay situation après ci la mujjee bàyyi jàng bi di liggéey maçon yàlla tamit dimbali ko ci maçon bi ba mu ci duggee macha allah da cee dugg yàggul dara ay deux mois trois mois mu commencé liggéey rek nice mhm. di tabax di gañ ay sànje fu ne lay dem di liggéey wax dëgg yàlla. Mhm. bu benn instant après man ak moom ñu bokk néeg maa ngi moom di dund. Mhm. bokk nañ néeg presque ay quatre ans quatre ans bay waaj a dugg ci cinq ans bi. benn jamono mu ne ma dama dama dama bëgg a dem seeti sama yaay. parce que dafa am côté boobu benn sànce quoi côté Sibassor yaayam benn am na benn dëkk bu dëkk foofu noonu. léegi bi mu demee bi mu demee ñu ngi déggante nice mu ngi liggéey parce que moom benn boobee rek laa amoon mooy jàppale yaayam li mu nekk fii nii Dakar man ak moom lépp lu mu liggéey bu wàccee bu ñu ko fayee journée dina jël 3000 wala mu jël 4000 envoyé yaayam. korité ak tabaski du bàyyi yaayam chaque jour loolu la ma doon wax booy sama yaay laa bëgg a jàppale sama yaay dafa sonn parce que yaayam moom kese la am ci doom ñu benn doom bu góor. dañ na ko sax noonu la tuddee woon boppam fils unique. Mhm. léegi bi mu demee bi mu demee foofu ci dëkk dëkk yaayam. nekk fa di liggéey di jàppale yaayam parce que li li ko fa gënoon yóbbu mooy yaayam dafa doon dafa waroon defaraat kër gi quoi. Mhm. léegi bi mu demee moom moo defaraat kër gi. yàggul dara ki nga xam ne moo doon denc yaayam mooy papa bàyyi jiit leen. génn àdduna. mu génne àdduna tamit mu nekk fa. nekk fa daal ba benn jour ñu déggante mën a ko booy te ngaa ñëwaat dakaar mu ne ma noonu loolu rek laa bëgg ma ne ko ñëwal Dakar parce que jël naa fi benn genre studio te man léeg maa fi nekk ñëwul dakaar boo ñëwee dakaar am na benn néeg bu fi des nga jël néeg bi wala ilaa sax man ak yow ñu bokk néeg bi. Mhm. mu ma waa dinaa ñëw. ñuy déggante nice. Mhm. benn jour am benn benn benn sërëm bu ñu naan ku ma jaay bu dëkk fii nii Kër Mor Fadam woo ma ba ma ñëw man gisuma ko sax ci internet moom moom woo ba ma ñëw ne ma yow xanaa yëgoo li dal sës ma ne ko lan ma ne ma sës daal Kaolack la jóge woon boobu ba léegi kenn mënu koo gis ma ne ko lay wax nii mu ne ma billaahi après ci laa taal sama téléphone mu gis ko ci net bi gaa yi di ko publier quoi. Mhm. ma ne waaw mais lii nu mu demee nii ma demaat ci Koumba Ndiaye laaj ko Koumba Ndiaye ne ma noonu la demee dafa jógee Kaolack ñëw fii mais après par ñu benn nijaayam expliqué quoi ba mu jugee ba jugee Kaolack ñëw fi. Mhm. dafa jubali wal fajiri directement. Mhm. mais ci ay ci ay ci ay melokaan yoo xam ne xam nga jéggi na dayo quoi bi mu demee. mu ne mu visi mu fekk fa visile yi quoi mu ne leen dafa am lu mu bëgg a wax. dama ko bëgg a wax. visile yi ne ko non mënoo ko mënoo ko wax parce que caba day def émission bàyyil ba caba pare. après dégg naa sax par la suite caba dafa dagg émission am ñëw si moom ne ko lan nga bëgg wax mu ne ko non dama bëggul a wax. moom bi muy ñëw. moom bi muy ñëw sax indiwul woon téléphone. mais comme kóoru woon na numéro yaayam mu jël numéro yaayam jox ko caba caba woo yaayam wax ko ko mu ngi fii Walfadjri nee pour ngeen jël ci ko. Uh-huh. caba ko léegi xaar dina vigile nañ ma nañ ma ko téye la. vigile yi fi ñu ko téye. Uh-huh. mu jékki-jékki mu ne vigile yi damay naan damay naan café damay jënd café ñu génnee jënd café ci lañ ko ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ko gëj a gis quoi. Uh-huh. léegi par la suite. ñuy def ay recherche di def ay recherche di def ay recherche jël ay photos bi ko partage. di dem di ñaanlu ji fu ne dem nañ fa. benn jour sama benn copain. ne ma booy xoolal commentaire u Facebook yi am na benn gaañ bu ne ma gis na ko Kër Massar. ma ne ko Kër Massar ma ne ko pourtant Zeus gars yi fii ñëpp xam nañ ko de bu ñu ko gisee peut être dinañ ko téye wala dinañ wax ak moom mu ne ma gaañ bi daal nee na gis na ko Kër Massar. loolu samedi la sama copain bi samedi la ma ko wax sama copain mu ngi tudd Lamine bi ma ko waxee samedi dimanche ma xëy fajar ma woo sam benn gaañ. Mhm. koo xam ne tamit ko xaritam la woon Aline day jaay ay yére quoi. Mhm. léegi ci laa ko waxee Aline Aline na ma booy rek ñaari moto. mu ne ko waaw amul problème ci laa wooyoo ñaari booy yoo xam ne ay cag-cag lañ ñu taal moto yi ñu dem Kër Masar jour boobu dimanche la dama dama mujjee bàyyi sama liggéey sax dem bi ñu demee Kër Masar ñu wër foofu yëpp parce que bi ñu koy wër rëpp ñu ngi yor photo fu ñu dem dañuy taalal photo am na ñoo xam ne kii xam naa ko kii keroog jaar na fi ñu wër wër wër wër dem nañ ba côté ginnaaw Kër Masar bi gisuñu dara après ba ñuy retourné ma ne booy nañ jaar ci station bi quoi. léegi bi ñu jaaree ci station bi ñu fekk fa euh, chauffeur kalandoo yi comme ñoom dañuy xam ñiy traversé foofu ñi nga xam ne seen xel neexul parce que man photo bi ma mujjee gis bi ma ko gisee xam naa ne kii nii am na lu ko dal quoi léegi ma bàyyi fa benn photo ma ne gaan bi boo ko gisee rek ngeen wooñu quoi gaan bi nañu ah kii kat daf fiy jaar tout le temps. ma ne ko ah, mu ne ma ne ko waa amul problème boo ko gisee nga wooñu léegi ma ñëw sama place toog di liggéey ba ay 17 heures bi woo ma dama jëwriñ ma ne ko waaw. mu ne ma sa waa ji de mun a fi léegi léegi mu ngi nee sax toog ci biir koñ bi ma ne ko ah mu ne ma waaw instant boobu xamatuma lu may def moo waat sa waay Aline na ko booy sa waay nee nañ mu kër Masaar. Mm-hmm. ñu taalaat moto yi dem bi ñu demee gain bi nañu sa waay mu ngi fee ci biir koñ bi ñu taal moto yi avancé ñu jàkkaarloog benn gain gain mu ngi toog nii mais moo gain bi dañ xaw a nduróo parce que gain mu ngi sol benn tubéy bu ngande nii ak benn benn chemise bu xaw a ampoule nii. Mm-hmm. di dërëj boobu nii quoi parce que moom style boobu noonu la yoroon. Mm-hmm. ñu dem ba tiim waa ji nii waa ji tamit boo xoolee da ngay xam ne kii am na lu ko dal quoi. xam na ma xool ma ne ko non sa waay du kii du sa waay de kii du sës de non waaw du moom ma ne ko du moom duñ xaw a nduroo rek copain maa nduroo ne ma wuy moog sa nañ de. après ma gis fa beneen gaañan bu ñu naan bigi beneen gaañan bu yor benn salle de jeu gaañan bi tamit xamoon na ko quoi gaañan parce que gaañan boo tamit tiktokeur la maa gaañan bi sax mujj nañ def benn vidéo gaa bi ne ma man sa waay dama doon dama doon dama doon gis ci net bi rek mais est ce que dëgg la ma ne ko non si dëgg la après man a gaa bi bi ko. mu ko partagé après am ci benn commentaire benn gaa kii gis naa ko Môle 2. sëb na Môle 2. fii Dakar. Ah, kii port. Mhm. na ma naa ko Môle 2 xaw ma côté Val d'Or xaw ma côté côté côté Monaco Plaza ma ne ko ah. waaw ah, baax na après ci laa ko waxee fii sama gars yi sama gars yi nga xam ne presque ñëpp port la ñuy joobee. ci laa ko waxee fii gars yi wax ko ñoom bii bi ak sama yeneen gars yi ak sama yeneen booy yi nga xam ne fa la ñuy ñoom ñëpp mm-hmm. mais gars yi tamit def nañ recherche foofu xool nañ foofu yëpp gisuñu ko mm-hmm. xam nga après nag ci lañ dem ci ay sëriñ ci ay maara comme ñun xam nga loolu lañ gëm bi demee maara yi def def loolu nañu ay tegtal génne loolu ñu ay sarax génne nañ sarax def nañ ay tegtal xam nga bi ab bi ba affaire bi bi muy bi muy bi ñun bi muy yëg ne affaire bi instant bi nii ëpp nañu doole après man benn jour ci laa woo yaayam bi ma woowee yaayam ma woo ko ñetti yoon parce que moom moo ma joxoon sax numéro yaayam mais moo woo ci numéro yaayam woo naa ci ñetti yoon jotuma ko après par la suite ci laa ko waxee sërëm bi quoi mu ne ko Iba Cissé maa ngi koy woo jotuma ko mu na ma kon est-ce que changé wul numéro après benn tonsam boo xam ne dafa ma boole woon ak moom. Mhm. tons bi dafa waroon jënd ay moyo quoi ay moyo en gros ak ay blouson mu boole woon maag tons bi comme yor naa bi. ma woo tons bi ma expliqué ko tons bi ne ma tamit nii la kaa bi demee foofu ñoom tamit ñu ngi ñu ngi wut ay ñaan ñu ngi wut ay lépp ma waa kon alhamdulilah ñu teg lépp su loxo suñu borom xam nga. Mm-hmm. daal noonu la noonu noonu la demee quoi ñun fu ñu xam dem nañ fa xam nga ba keroog tamit aussi bi ñu dugalee bi am nañu benn site internet bu fi ñëw seeti ma ma wax ak ñoom beneen gaañ tamit woo ma ne ma gaañ ci commentaire am na benn gaañ bu ne ma gis na ko Espagne xam léegi bu ñu bi ñu xoolee compte Gayen bi da xam ne lii foo compte la quoi parce que Sénégal moom xam am na ci ñoo xam ne dañuy nekk ci internet bi rek di commentaire lu leen neex. si si xam ma moo xoolee xam ne nii kii day wax rek parce que sa man jàpp naa ne bu nekkoon Espagne nekk ak xelam. Mhm. dina woo yaayam wala man mu woo ma quoi. Mhm. xam nga parce que bi muy jugee bi muy jugee Kaolack di ñëw dakaar moom mhm. boobu yorul téléphone. affaire bi daal noonu la noonu la cas bi demee quoi léegi nag. man moom li ñu munoon yëpp def nañ ko. Mhm. li ñu mënoon yëpp def def nañ ko parce que man chaque jour nit woo ma ne ma sa waay affaire bi lii affaire bi man leen ah teg naa suñu borom. Mhm. ba démb démb démb yaayam ñëw na dakaar parce que dafa am suñu benn dafa am benn xaritam. bu ñu naan mhm. baara bu ñuul moom aussi da cee sonn trop baara di ja baara bu ñuul. moom à chaque fois day dugal photo yi di ko partager di def ay émission pour pour sa waay quoi même aussi tamit di ja Padros moom tamit aussi def na ci ay publication parce que ñooñu ñëpp ay xaritam lañu woon dama doon toog ak moom nii mu leen woo di déggante ak ñoom xam nga mais daal affaire bi moom noonu la demee quoi. instant bi ngay xam ne yéen a ngi woon ci dëkk ngeen amul ñenn ñoo xam ne daanaka amoon na ñoom problème ak genre détail yooyu noonu. non bi ñuy dëkk man ak moom wax dëgg yàlla amul ak kenn problème parce que liggéey wàcc man damay xëy liggéey moom day xëy liggéey bu ñu wàccee ñu boole li ñu am nekk ci suñu jàmm quoi amuñu woon benn benn benn problème wax dëgg yàlla parce que moom moom. ñaari activité la amoon. mooy day dem liggéey wala mu dem studio dem rab yi. Hmm. parce que la woon wala mu def ay vidéo dugal ci TikTok bi. dem na ba benn jamono sax gars yi na ko booy li ngay def nii doo ko farataal nga fulaal ko mais moom lijjantiwul yooyu day nekk chantier sax def vidéo tëmbal gars yi vie après moom pare na ci mu nekkaat ci leneen. Hmm. mais dip bi ñuy nekk man ak moom depuis 2016 su ma juumul xaw ma 2017. musul am ak problème ak kenn. wax hmm. dëgg yàlla lu mu liggéey yaayam la koy yónnee lu mu liggéey yaayam la koy yónnee. loolu moom mun naa koo seede te mun naa koo waat. ñu ngi lay masaw bu baax a baax a baax donc lan ngay ñaan sénégalais yi nga xam ne daanaka ñu ngi lay déglu fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar wala ak ci Buzz pour kenn koo xam ne daanaka mu farataal li ni mel parce que doon na loo xam ne mun naa ne lu sérieux la doon na loo xam ne tamit lu métti la la nga leen di ñaan rek. waaw li ñuy ñaan rek mooy fekk fépp fu mu nekk bu fekkee mu ngi si jàmm ñi ñaan yàlla yàlla jàmm jooju sax. Mhm. parce que ñun tamit loolu rek la ñuy ñaan quoi parce que man mooy wax démb rek yaayam rek laay xalaat parce que moom kese la am ci doom bu góor tey da doon dimbali yaayam dañuy ñaan yàlla képp koo xam ne tey jii nii xam nga ko wala mos nga koo gis am na ñoo xam ne ñaan lañ mën nañ ñaan pour ñu retrouver ko am na ñoo xam ne comme yéen tey jii nii Feeling Dakar wala Actubuzz li ngeen def nii lii ngeen mën ngeen dimbali ñu ci rek lépp lu ci waay mën rek ñu jàppale ñu ci quoi parce que instant bi nii yaayam jaaxle na trop man ay copain ay xaritam ñu ñëpp jaaxle nañ mais yaayam moom wax dëgg yàlla instant bi la kenn xamul lu muy def. ñu ngi ñaan yàlla nag xam nga yàlla ñu ko yàlla sàmmal fépp bu fekkee mu mu mu ngi mu ngi dund yàlla ñu ko yàmm yàlla sàmmal bu fekkee tamit dundul tamit yàlla moo xam. mais dañuy rafet njort rek nay xëy na fi fépp fu mu nekk mu ngi ci jàmmam quoi parce que am na ñoo xam ne sax dañ may woo des fois ne ma non sa waay fi mu nekk moo fa bàyyi boppam man leen non non kon yéen xamoo leen sës xamoo leen sës parce que sës man bi ma xam sës bu bu nekkee ak conscience am tranquille non dina dina ma woo wala mu woo yaayam parce que bu ñuy mujjee déggante man loolu la mu wax dana ma damay ñëw Dakar su ma ñëwee Dakar peut-être foofu am na ay chantier ma takkalewaat dara parce que benn rêve rek laa moon mooy dem tukki dem jàppale yaayam moom rêve boobu rek mooy mooy rêve am quoi. ñu bàyyi la jàllale numéro yi pour kenn koo xam ne rek dégg na ko. waaw numéro yi mun ngeen jàllale man. Ah comme maanaam comme mm-hmm. comme sama numéro mun naa ko joxe mun naa joxe tamit aussi numéro yaayam. Mm-hmm. yaa mu ngi tudd mère Binta Binta Bari. Mm-hmm. sama numéro mooy 77 890 91 20. numéro yaay mun naa kaa joxe. waaw ah. yaay mu ngi mu ngi nii ama ah, joxe ko. bon nekk na loo xam ne euh, mën naa ne métti na loolu yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel au niveau fi nga xam ne moo di ci. numéro yaay mooy 77. 292. 07 79. looy numéro yaay 77 292 07 79. jërëjëf. d'après d'après loolu si li ma doon bëggoon laaj benn ponk ndaw rek bon moom moom avant muy euh, génn comme que wax ngeen yàgg ngeen trop est-ce que dafa amoon parce que sànq maa ngi dégg ngay wax dem ngeen ba ba Kër Massar ba jaare ko kenn koo xamante ne maanaam ko xel bi muy jógee fii bi muy jógee fii man moom man ba ñuy mujjee gisante wala bi ñuy mujjee déggante man ak moom amul benn problème parce que ba mi ñuy mujjee déggante maa ngi koy rappelé wu bi ñuy mujjee déggante dana ma ceki ma ko waaw mu ne ma booy instant bi nii ay pelouse laa soxla ma ne ko booy pelouse yaa ngi mu ne ma ana Koulouzi ma ne ko Koulouzi yaa ngi fi boo fi ñëwee Koulouzi yaa mu ne ma du ma bëgg su ma ñëwee sax dama bëgg a dem studio dem def ay shooting quoi ma ne ko waaw Koulouzi yaa ngi fi ba bu ñuy mujjee déggante dara jotu ko mais comme bi mu nekkee bi muy bi muy bi muy waaj a ñëw boobu peut-être mën naa am lu ko dal ci diggante bi loo xam ne man yóbbuma ko dama wax sama dëgg rek parce que nit ñi am na ci ñoo xam ne ñu ngi naan dañ ko liggéey ay dañ ko nawtal mais man lu ma tegul sama bët wala lu ma gisul mënuma ci gisé quoi en tout cas daal li may wax mooy nañ nangu ni ay ndogal la rek teg lépp su loxo suñu borom parce que tamit boo fi waxee leneen loo xam ne tamit ëllëg mën na feeñ mu leer kii nii dara dal ko woon wala tamit defuñu ko woon dara après yow yaay rus rek mais lépp looy wax rek nan nga ko wax sa diggante ak suñu borom man moom bi ñuy mujjee déggante wax dëgg yàlla dara dal ko woon mais nag photo bi ma gis man bi ma ko gisee xam naa ne kii dafa am problème. ah kon gis ngeen benn benn benn. gis naa benn image boo xam ne wal fajiri la parce que defe naa kii moo ko foto su ma juumul Thiaba moo ko photo woon. Thiaba wal fajiri moo ko envoyé woon nijaay ji. bi mu ko envoyé nijaay yi nijaay ji envoyé ko ku ma jaay benn sœur mu nekk fii. Mhm. kooku won ma ko ma ne ko sama waa ji kon am na ay problème quoi que bi ma ko gisee xam nga dafa dafa changé quoi. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi tamit dañuy maa ngi maa maa leen di gërëm di leen sant. ci bi ngeen def tamit quoi ak yitte bi parce que àdduna moom xam nga ku gërëmul nit doo gërëm yàlla quoi. maa ngi sant waa Feeling Dakar ak waa Actubuzz ak site internet yi nekk Sénégal yëpp parce que ku ci nekk tamit